bismillaahi rahmaani rahiim auzu billaahi mina seytaan lazi gannaaw bu ma sante yàlla julli ki yenent bi salallaahu alayhi wa sallam ma ne waaw maa ngi nuyu waa Sédhiou yëpp kàddu bi su ma ko yëkkatee sama suñu xalif muy Mansour Niang ki ndigalam moo tax ma yëkkati wax wax bi di nuyu Mansour ak njabootam doomam yëpp fàttewu ma kenn di nuyu Sidi Niang ak njabootam di nuyu Viennu ak njabootam ju nuyu Habib Niang Asi Niang ak njabootam Kinde Niang ak njabootam Ibrahima Niang mi man mi ak sama njaboot yàlla bay leen fi may leen gudd fan ak wér lu si tegu mooy dinaa ñaanal aussi Abou Diop mi doom ci kër ga bokk benn deret parce que maamam la muy tuddee sëriñ Ibrahima Dieng koo xam ne moo nekk premier imam de Sédhiou abu asalaamaaleykum li ngay lépp li ngay def Sédhiou gis nañ ko li ngay def ki Gàmmu gis nañ ko yalla mu am fay yàlla na la yàlla fay te nga yàgg ko gouvernement bu yàgg yàgg yàgg du nuy Kombe Dieng Kombe nit la boo xam ne pour solo yore di ñëw rek di defar kombe jërëjëf xadi mi yaay ñëpp uuf ñëpp yaay abu maa ngi leen nuyu di leen sar di leen le gouverneur de Sédhiou di nuyu le préfet de Sédhiou nuyu autorité yëpp bay ma kenn ku lum jum fàttewuma nag homme de loi yi ndax yéen a fi nekkal nit yi lu baax yàlla lu bon yàlla yàlla ne yàlla aar man nag kaddu bi su ma koy yëkkatee maanaam sama mag moom moo wax ne naa wax mi alaaji Mansour Niang mi xalif tey xalif bi nag dafa topp magam muy Abdou Niang Abdou Niang bu mu fi jógee Mansour Niang mooy xalif bi te ci ndigalam lañ war a topp muy man muy keneen parce que ñun dañuy toppante depuis ki suñu sœurs yi suñu frères yi kenn ku nekk da nga jox respect sa mob kon na yàlla jëm kanam ma ñaan xale yi aussi ñu nekk benn yu toppante aduna dafa jeex ba pare aduna amul solo may nuyu waa Sédhiou ki imam Ratine ak bépp imam bi fi nekk gis naa liggéey bi ngeen di liggéey ki ñankunda tayu leen sonn leen jërëjëf jëf mais mention spéciale mooy oustaz oustaz ñoo bokk kër waaye ku baax la ku yéwén la maa ngi koy nuyu bu baax du nuyu Moussa Touré infatigable xol bu rafet la yore di defar lépp lu am Ñankunda taam suma baay bi Abdou Niang ba Mansour Niang mi ngi si taxaw mooy Moussa mu nekk RTS bu Sédhiou Moussa Touré maa ngi lay nuyu ak sa njaboot yal na yàlla may gudd fan ak wér yàlla sàmm la sàmm sa njaboot eh, gàmmo bi dañu bëgg mu nekk benn te xalif dafa ne gàmmo léegi lu ñu koy doon lu ñu ko doon def dootu amati parce que sama baay bu muy def gàmmu ay yàppale pose walla rey ay béy ñu ñëw di rey ay nag ñu jóge fofu ñu ne dañ jàng guddi waaye xalif bu fi nekk dafa ne mosquée bi grand mosquée baa ngi fii te jege na suñu kër léegi lu ñuy def mooy suñu bàyyi lu mu doon def wàccee kaamil suba ak ngoon ñu ñaanal ñu dem ak njaboot bi ngoon donc loolu lañ commencé ren te yaakaar naa loolu mooy veille parce que kenn ku nekk da nga war a topp sa xalif lu mu la sant soo ko tegee rek jaar loo yoon te ñun ñëpp war ñu teg benn yoon wax xalif bi wala xalif bi lu mu wax mooy am tey mooy am ëllëg te bu sobee yàlla ñun ay Baay Faal lañu rek topp suñu mag yi rek bi yàlla jëlee lañu fii yàlla na yeex waaye ñu ñaanal aussi sama mag muy Ramatoulaye ñaŋ ku baax ku tabe moo génn àdduna fan yi yal na ko yàlla yërëm yàlla xare ko ajana yàlla suuf sedd ki koom Rama soo gisee cotisation yi am ci gàmmo bi moom la parce que ñun rek ñoo doon def famille bi mais def boole na si sët yi boole si ñëpp mais na ñëpp cotiser kon Rama yàlla yàlla fu mu tëdd yal na ko yàlla sutural foofu suuf yoof yal na sedd ki kawam su ma fa jógee ma dem ci xarit yi àndandoo yi ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm ba suma locataire bi bu nekk sama kër bu def lu rafet ki man bu may ñëw jar naa gërëm ñu ñe ñaanal cabinet bu mu ubbi cabinet médical bu mu ubbi nii yal na kanam yal na ko yàlla sutural am sama benn xarit bu nekk pos mooy directeur poste bu Louga di ko Amady Ali jallo mu nekk sama xarit sama àndandoo suma confidentiel tey mun naa wax ne man famille bi venu mooy sama xarit moom laa wax mun naa wax ne maag Viennou ñoo bokk ndey ak baay parce que ñun amuñu xiiroo amuñu benn problème loo xam ne diw moo du eh, diw mooy doomu diw Viennou ñoo bokk baay mais tey mel ni ñoo bokk ndey ak baay du def dara wax ma ko Sidiya maag moom ñoo nekk Dakar lu xew mi ma sama rak jógal léegi ñun ay mag lañu lépp lu xew ñànkunda mun naa wax tey maa taxaw te may may may lépp ma may gërëm Sidi Niang bu baax a baax a baax kine ne ñaam moom waa Sédhiou la waa waa Sédhiou yëpp gis nañu lu muy liggéey ku baax la ubbi na xolam soo gisee sax ñànkunda jigéen yi bare di ñëw ki ne ñaam moo tax muy ñëw ki jërëjëf may nuy as yi ñaa bu Ziguinchor as wax dëgg yàlla bu ñu nekkee xaleel këram la ñuy nekk du foo di kaf Adama ñaa nekk bunkili maa ngi koy nuyu di koy gërëm xar yi dafee nag kooku moom keneen la ci famille bi la bokk si nit la lépp lu xew ñànkunda mi ngi siy taxaw xani même Dakar du toog une semaine du ma woo te gàmmo bi lu mu mën def na ko lu mu man def na ko de ah am na koo xam ne il faut ma wax ko nag mooy suma doom suma yaay ko kan la ñu ko wax ndey ñaaw ndey maama ñaaw ndey ndey maama ñaaw maa ngi lay nuyu ndey maama ñaaw gis naa sa xol gis naa sa taxawaay mais li ma la ñaan mooy bootal njaboot bi rek wàccee sa bopp rek loo mun a gis rek loo dégg rek wàccee sa bopp adduna amul solo lee ma ma ñaan li nga def gis naa ko sa baay bu mu dund ba léegi yaa ngi taxaw sa rakk yi nag ñi nga wokk li ma lay ñaan mooy nga uf sa rakk yi nga eh, leen boot leen lépp lu ñu soxla soo ko mënee def ko ma kenn de waa France waa ameri waa Ziguinchor waa Louga maa ngi ñëpp. bu soobee yàlla ak yenent bi déwén bëgg nañ xalif bi teewoo ko te incha allah rabbi dina ñëw muy Mansour Niang Siri Niang dina ñëw Vénou dina ñëw te déwén dañoo bëgg a teel préparer gàmmu bi lu amoon rek la ñuy defaat rek ñuy ñaan xalif bi mu ñëw ki jàmm ak njabootam ñi France yi may la ñaan xale yi nekk France ñu topp seen baay topp seen baay ànd ak moom ñëw gàmmu Sénégal waa Sénégal la ñu fii la jur lañ France mais sénégalais la comme lu ñu nekk France taxul nga toog France da nga war a ñëw lépp ñaan bi fii la nekk nekkul France de. allo salaamaaleykum ñaan kontaan nañu ñu ngi leen di ñaanal gudd fan a wér suñu bàyyi seen mbokk mi kontaan nañ ci ñu ngi ci am tiyaabu am ci gërëm am ci lépp suñu toppee seen tànk yi kon nag bokk Ñankunda kontaan nañu. seri Ibrahima Dieng moo Cheikh Niang lu ñu liggéey yàlla ko fay ci njaboot yàlla fay ñu ko El Hadj Malick fay ñu ko kontaan nañu def nañ lépp ñoo ñoo ñoo di Abdou Niang wiyee Niang ñëpp suñu càmmeñ yi wéetal nañ mu ni man ñooy suma càmmeñ maa ngi leen di di leen ñaanal di ñaan gudd fan wer wér ñu yàgg a def lii Mansour mu sabab lii tam na yàgg suñu kanam ci barke Nabi mbokk ñëpp ñi gën a nekk benn tappi xol yi ñuy benn ñun ñoo bokk addina alaxira bokk nañu addina nañu bokk alaxira ci àjjana ci barke nabi maa ngi leen di gërëm di sant Jenkunda amul amuñu kenn ñangeen ñangeen amuñu kenn Jenkunda ñoo bokk suñu baay yi la ñu gis kon nag amuñu seen fay xanaa topp ndigal rek waaw ñu ngi leen di sant guddee bu cëg di ñaan njaboot bi gudd fa wër ci barke Nabi barke El Hadj Malick waaw. xool Asietu xool <laughs> Asietu man nar wax waaye sama mag bu waxee rek waruma wax dara. mbaadi misil mol teñante diyamu lamandi kakkaŋol la mbe banko mo be jayla mbe duniya be jayla mbe seejonkol jayla seejo alhamdulillahi rabbil alamin seejo yakata yankata fam fam fam fam fam fam birin fama ñin gam o commencé fombe bi mun to anin koto ma fon koto ma abdou ñang seigne abdou aziz ñang faadi tata biya idan kuma solo ne mo seigne man sol ñaya ta oto bi wala mo khalifo ta be sirin pari banko to me ay man kende ya wala na man nano ana do ma sidi ñang ani ibrahim ñasangu nar ñang ani abib ñang be mutiwa on kollete alhamdulillahi rabbil kon nag ñu ngi gërëm suñu mbokki waa Tiwaawoon sama papa bu mu fi dalee ñëw ba léegi njabootam yëpp waa Tiwaawoon la leen tuddee ñëpp Tiwaawoon ànd ak sama papa sëñ Ibrahima Dieng ak Maguette Sarr ak Malick Ndiongo Xaasim Ndiaye maa Joob Kunda ci Taanaaf be be Taanaaf be euh, Simbandi ñoo ànd si jàppante ñeneen ñi dellu ñeneen ñi toog waaye tey macha allah aw la cat seen gannaaw rafet na seen ñaan nañu kilifa yu mag yi waa kër Alaaji Maalik Si ñaanal nañu ñaan bu doy waa kër Kunta Kunta Kunta Kunda ñaan nañu ñaan bu doy waa kër Sëñ Tuuba ñaan nañu ñaan bu doy waa kër Chérif Binaako Chérif Yunus Aydara Bakeer Bañeer ñaan nañu ñëpp wax dëgg yàlla tey ñun bég nañu boo gisee ñi def gàmmu ba léegi tey ñu bés bu ne mu gën a yokk at bu ne mu yokk ñaani waajur yi ñu ma wax ne ñaan ñooñu ñoo tax ba léegi ñu ngi gàmmu suñu suñ bu mu dayoo ba léegi suñ mag tam ci te ki nekk tey nekk xalifa tey kon nag maa ngi gërëm waa Sédhiou yëpp ba waa RTS ba rajo Gaabu Moussa Touré ak ñoom ak ak délégation ñoom kii Oustaz Sagnang wax dëgg yàlla taxaw nañu taxaw bu rafet taxaw boo xam ne am na suñu rajo yi ba tey alhamdulilah rabbi Abu Diop mi nga xam ne. suñu doom la suñu wolore la suñu lépp la maamam fii la jógee ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér yaram ak jabooti yëpp njabooti ñankunda jeyte kunda ku jaabi kunda jeng kunda mi nga xam ne sama papa moom ñoo ma ànd si tey sama ma yi toog nii ñun ñoo bokk ndeeg baay kon nag maa ngi ñaanal famille bi yëpp njabooti yal na si yàlla wasal barke yal na leen yàlla taxaw yal na leen yàlla sutura yàlla may leen mujj bu rafet ci barke salaatul faati barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf merci bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil nañ ko daaw yàlla may ñu kattan may ñu gudd fan may ñu wér ba ñu fekkee ko ren ren tamit ñu ngi ko fekkee di sant yàlla ji boole yonent sallallahu alayhi wa sallam yéen waa RTS ñu ngi leen di gërëm di leen sant di seet seen taxawaay bu rafet bi ñu ngi leen ci gërëm yan na ngeen sax yan na ngeen yàgg liggéey bi yan na ko yàlla law si seen loxo ñu bokk ko askan jullit yëpp tey suñu besu baay la suñu baay a ko sosoon suñu baay génne suñu mag yi sos ko ñu ngi ne sant yàlla ba mu bare lépp loo xam ne ñangeen la jangeen la faaleen la njoobeen la Casamance yëpp Sédhiou yëpp seex ña nga ngi leen di nuyu ak jabootam yi seex ña nga ngi di nuyu ak jabootam yi di nuyu waati waawoon ak seen jaboot Maodo Malick si Khalifa Babacar si Abdou si tax boo gisee taxawaay bi yàgg tey taxawaay bu gudd fan ngi mel ni ñoom ñoo ko sosal ñu ko ko sosalee ba tey suñu papa taxaw si suñu papa génne na àdduna ñu ngi sant yàlla di ko gërëm mu bàyyi fi ay jigéen bàyyi fi ay doom bàyyi fi ay jabar ñu jël place am Abdou Niang génn Mansour jël place Abdou Niang Mor Keba taxaw ci place Abdou Niang kon ñu ngi leen di sant waa RTS ñu ngi leen di gërëm. di leen ñaan bés bi yan nañ ko fekkee fekkee déwén yi bare yan nañ ko tal ti ko tal déwén yi bare yéen ñi nekk RTS tamit ñu ngi leen di ñaan yàlla seen liggéey dëgër si seen loxo ànd ak gudd fan ak weer xale yi fii nekk xale yu góor yi xale yu te jaboot bàyyi leen fi borom kër bàyyi leen fi yal nañu doon borom kër ak seen jaboot yi yal nañ fi sax ak seen jabar yi kër gi yal na ko yàlla naatal yàlla yokk ko alhamdulilahi rabbil alamina man la asiyatu ñang jërëjeen jëf jërëjeen jëf waa RTS jërëjeen jëf suñu mag yee fi toog gërëm bi nag duñ ko mën a jeexal waaye dañoo kontaan ba lu ñu mën a waxal rek foofu la mën a yem ñu ngi leen di sant di ànd gudd fan ak wér jërëjeen jëf jërëjeen jëf Moussa Touré ne ko ñu ngi koy gërëmal mu gërëmal ñu mus Kanté bu baax ne Kanté noon naa du def lii waaye dafa xam ne moom Abdou Niang Kanté moom Abdou Niang ñoo maase kon nag li mu def nii yal na ko yàlla yokk yal na yàlla yokk fan yi na yàlla yokk fan yi maa ngi jaale sama waa kër kër mag ah, kii Ramatulaay Niang mi gaañu nga xam ne ñoo doon sos gàmmo gi moo doon taxaw gàmmo gi organiser ko ba mu jeex maa ngi koy ja maa ngi jaale njabootam yëpp di leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram bu déwénee ñu ñëw fekke ñun ñëpp fekko ak waa kër sama mag ummi ñang ba si awa ñang ba si Kolda waa kër Ndeye Niang yëpp maa ngi leen di nuyu di leen di sargal ñëpp la ñuy ñaanal ñu ngi ñaanal nañu famille bi yëpp waaw ku lim joom juum waaye ñaanal nañu yëpp famille Niang Kounda ñëpp lañ jaale famille Dieng Kounda yëpp ñu ngi jaale dañu Rama Niang jërëjëf merci beaucoup